Euh, mu woo leen ku ci nekk andi ko si nga xam ne moom nga am li nga xam ne euh, xel mën na dal ci tiitaange ji askan wi am mën na ñàkk am loolu nag su amee bu ñu fa jógee dañoo war a woo askan wi wax ak ñoom xamal leen ne am na yenn tiitaange yoo xam ne ñu ngi koy def ci wàllu daara yi ba ku ne di jënd si yóbbu sa kër euh, mën na ñàkk li ñuy ñaan nag mën na ñàkk bi dañ koy wutal ruxsa maanaam liñ koy argumenté. mën na ñàkk bi yàlla na yàlla def mu yem fii ndax loo lii am ku génn ci mbedd mi gis ne circulation bi daa wàññi ko ñëpp tiit su ñuy wax ne jàmm fi xam daara yi du manqué dañuy ñaanaale yàlla mu mu bañ a continuer yem fii ndaxte loo xam ne lii euh, da nga koy mën a gérer ci fàggu dafa am limite bu mu yem waaye lim ñu wax te gëm nañ ko won ñu ay argument yoo xam ne war nañu wax réew mi ne ren c'est pas la peine ku ne di dem di jënd di yóbbu këram parce que réew mi am nañu lu dundé ci ay weer yu bari ci suñu kanam ginaaw bu lolu wéyee ñi ngi wax ak suñu mbokk commerçant yi aussi parce que bala li nga xamné mom la fièvre bi nara di jur ba tax kenn ku ki ne boy dugg ci barab ñu la da nga laver say loxo moy set te marché yi ño wara ñëk ci lolu parce que daanaka nitu marché dekkul kërëm so xé si sa demata yaa ngi fa bala nga fa joggé bo ñëw fekk sa njabot teud donc war gor lu ba suñu loxé yi ba si ba fi ñu set ak suñu loxo ak lepp luñu lek bu loolu jallé commerçants yi li ci ëpp bir Dakar ak bitim réew mi euh, dañuy faral di dem ci ay luma bi gouvernement ba jëlé euh disposition yi mu jël wax ko euh préfet yi nek ci réew mi yëpp dañuy jël ay arrêté pour né luma yi nañ ko tegandi ci souf lolé tam ñi nga ñaax suñu bokk commerçants yi bu kenn xëccante ak ñom parce que loolu ñuy def ñoom ñu na ci yem lu baax rek lañ jublu parce que nee nañu dajale ay nit da euh, dañ koy bàyyi ba ay jëmmi jamono donc préfet yi arrêté yooyu ñu def ci luuma yi bu benn commerçant xëccante ak ñoom nañ topp lim leen wax te xam ne euh, bu nu fi yàlla bàyyee lu tuuti la lu fi jaar day jàll. di gërëm itam euh, ministre de commerce parce que bu le mel ni amee commerce moo yor réew jóg na pour woote pour xamal no li nga xam ne moo am ci réew mi. pour euh, xel yi ñëpp daal moo waral nag lii ñu def tey jóg pour xamal réew bi ne dund am na fi yàlla na yàlla yemale ko fu mu bañ a continuer parce que su fekkee ne dafa jàll ci li ñu xalaat loolu mën na am li ñuy séentuma waaye ñaanuñu yàlla mu mu mu weesu foofu loolu bokk na ci li nga xam ne dajal li ñu des itam ñi fi ñëw ñëpp itam muy journaliste si muy le bureau exécutif bu INACOI ñu xam ne boo gisee salle bi ñu ñëw yemale ko fii dañuy tere ku dajale ay nit ne sinon mën nañu fexe ba nit ñi dañuy fees fii ñi ci taxaw waaye comme dafa wax ne daje yi lu mel ni ay daayira ay nga dajale ay mbooloo dañ koy bañ euh, lu ñu li ñuy def ci liggéeyu loolu la bokk parce que dañuy euh, jàllale message bi nga xam ne moom la ñu ministre commerce wax wante nag waruñoo violer li nga xam ne réew mi yëpp dañ ko respecté mooy dajale fi ay nit oto yi gaare fii te loolu aussi moo tax ñu yemale ko fii